حسب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع حليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxlul xuqdatan min lisaani yafqahul qawli subhanaka laa xilma lana illa ma xalamtana mbokki info réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di si jëttal Babacar Ndiaye Soda ak Pape Sidi mi nga xam ne mu ngi ci caméra bi seen mbokk alxaaji Modou Cissé Wadduha comme na ma ko aadawoo rek di laaxee birante ak yéen moo ñëwaat tey ci info mi fas yéene la xibirante ak mbokki àddina bi yépp commencé ko rek nanu koy aadawoo fu kàddu àgg rek nu fàttali ko way jiitlu yi way jiitu yi ndax fa tabaarakallah la ñuy wax dee làqu la rek te fanu nekk lu nu leen yónnee ci xadd ya dañu koy delloo kon nu ngi ñaan fu kàddu ak nu jàng fatiha liy jàppandi si xul wallahu ahad nu xaddi yàlla ko sallallahu alayhi wa ak bépp newu jullit boo xam ne ma nga bar sàq di seet suñuy kilifa yi diine di leen ñaanal di ñaan yàlla yokk guddal seen fan lool yàq yàlla yokk wéral seeni cër nit ki noonu suñuy kilifay aada yàlla katt nañ leen ba lañu yenn si sunu réew mi di senegal nu man koy matal foto tabarakallah di ndokkeel jigéen ñi ndax danoo nekk ci weeru mars nuy wax ne weer la boo xam ne tànn nañ ci benn bés boo xam ne dañu ko cëralee jigéen jigéen nag bu dee àddina ndax jigéen ay yaay fa tabarakallah jigéen ay soxna kon ëpp na benn bés kon nu ngi leen di ndokkeel si cër boobu nga xam ne yàlla moo leen ko njëkk a jox ba tuddee leen saar si alxuraanul karim yi suratu nisha di ñaanal soxna yépp fa tabarakallah moo xam muy doom la moo xam mag la moo xam rakk la moo xam yaay la moo xam maam di leen ñaanal ndax al ummu madrasa soxna su baaxee rek fa tabarakallah lépp baax na ndax ki nga xam ne fi la moo yor magasin bi nga xam ne moom la yàlla di jenc la mu gën a bëgg muy doomu aadama loolu du lu ndaw kon nu ngi ñaan yàlla yàlla gën a jubal képp koo xam ne yaa ngi jaaroon si yoon boo xam ne yoonu safaan la yàlla wëlbati la ñi nga xam ne tollu noonu si nu jenc leen te mooy nu am boroom kër yàlla bettee leen yàlla may leen sëriñ boo xam ne bi fa tabaarakalaa bu ni gërëm lay doon ndax yàgg na di koy wax ne xéewalu soxna la si jiitu mooy sëy ndeysaan benn soxna dafa ma daan wax saa yu waxe lool si rajo bi rek duma nelaw ndax sama 40 mot na te amaguma sëriñ fa tabaarakalaa kon nu ngi leen di ñaanal yàlla may leen jëkkër su leen ko mayee muy sëy boo xam ne sëy bu barkeel lay doon njaboot yu bari tabarkeel it fa tabarakallaa ànd ak wërsëg bu yaatu ko loolu message la boo xam ne Wadduha moo koy ndokkeel jigéenu àddina bi yépp fa tabarakallaa nu seeni yéene laaxi birante tey si tolluwaayu jamono ndax defe naa e, baraana mag ñoo xam ne ku leen yeewoon na senegal léegi ñu ci bari dina di sàmm seeni xeleel comme ni ni sàmmee xar ndax bañ bëgg nu mucc dinañ xam ne fa tabarakala lu nu suñuy maam bàyyeeloon suñuy bàyyi bàyyee bàyyee na ko am na lu si commencé raaf loolu nag du lenn lu dul jikko bu yàqu te yàgg naa di koy wax ne àddina du luy sax jaaruwaay bu gàtt rek lañu fi jaar loolu nag lay sunu lañuy may sunu dund duñu ko perte mooy nu am ngërëmu yàlla te ngërëmu yàlla nanu koy amee mooy góor góoru kéem kàttan si loo xam ne ndigal la waaye moytu kem kàttan si loo xam ne safaan la defe naa at yi passé doon nañ fii dégg si benn dëkk bu nekk fii si réew mi nuy wax ne dañ fay faagaagal dañ fay faat ay ñu seen xel wàññiku ndax baatu dof day xaw a diis si man muy lu doy te ñi ko doon def ñëpp di si wut àddina rekk bu yàggul don ngay hamne lo xamne ken kenn daawu ko dégg ci jamonoy maam walla bariwul nu nan nu ngi sulli ñi nga xamne dañ leen suturalon ba nek ci sen kër gu mujju te ñaleen di sulli di wur ci ñoom mo xam lu ñuy mëna wur ci ñoom utun ci len adina adina sunu sunu te nak tay ban nuy wax ne ku si sa xale xaw a tardé tuuti sa fit dem wala ku si sa njaboot di jàngi da nga koy yóbbu ba mu àgg su wàccee tamit fa tabarakalaa da ngay taxaw xaar ko mën ko yóbbu lan indi mooy jikko ju yàqu kon nan gën a jikko yi yàgg naa di wax si ne fa defar ga si génération bi nga xam ne noo toll si at si di cinq ans dix ans fii ak trente ans nooy ilif jamono ñooñu nag kon fa lépp lu nu man ngir nu nekk tànneef ngir nu jub ngir nuy góorgóorlu kéem kàttan si lu yàlla gërëm dañu sewar di góor góorlu sunu kéem kàttan ndax ni nu ko xaddis waxee rek nekk ku nekk sàmm nga te sàmm bu nekk ëllëg dana la laaj lan nga doon sàmm noo ko doon sàmmee mu mel ni ki boroom kër sàmm la si këram mu mel ni ki fa tabarak laa njiitu réew sàmm la si réewam ku si nekk fonction booy man di yor rek ëllëg fa tabarak laa nii jamono di wax audit suñ boroom tamit dana def auditam kon fa tabarak laa nan gën a nan gën a nan gën a fur xol yi nan gën a fóot xol yi sang bu baax yàlla yàlla fayal na ko te yàlla tasunu si barkeem defe na waxoon na fi ne nan sang réew mi muy Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla tasunu si barkeem nan sang réew mi nan sang réew mi baa mu ko ay yoon balay sangoo deret waaye fa laa ku dégg liy xew jamono ku dégg liy xew nii rek war nga xam ne bu taxawul wax yasubillah li nga xam ne ku ko daan dégg bu njëkk da ngay wax ne loolu mënula am defe naa daanan wax na senegal dëkk bu nit wàññi ko woon laa ñi nga xam ne tout tànk lañ lépp wala mag ñi nga xam ne seen fi dëgërul sax du ñuy ñeme léegi nag sunu demee ba foto tabarak ki nga xam ne suturaal nañ ko ba jébbal ko boromam nit am fitu dem te la mu fay uti du lenn lu dul àddina te dinaa di wax ne ku si nekk sunu borom programme na sa bàyyi ko fi jamono bi ngay def loolu xamooy minute si des xamu ay waxtu la xamu ay fan ak loo say mënoon di am dana jeex jëf bi des daf tabarak la sunu borom ma ne na nu nekk ni ko benn mag doon waxee rek ne baraana ko takk saagam ne mu ngi dem barab sàngam te sàgg ba dañ ko ko tekkil wëlis ba dañ ko ko ubbil wala sax baraana koo xam ne bi ba muy xëy moo takk centre am te centre ba dañ ko ko tekkil kon toujours nit ki su dee woyaale ne yàlla mën na ñëw toujours nay góorgóorlu kéem kàttanam si di góorgóorlu si li yàlla gërëm tey moytu safaan xool yu tilim yeeg bëgge gu bëri geeg eh, connecte wu si réseau séyaatin nag bu nu si bëggee mucc yàgg naa koy wax nan di saxoo laab laabu yaram laabu xol nan di bari li lu ñuy def istighfar istighfar fa tabarakallah lu ëpp xeeb la nan di bari li lu ñu julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu ma wax fa tabarakallah képp koo xam ne bii bëgg nga bokk si tànne fi borom bi bëgg nga yàlla soppil la sa euh, xol ba nga connecté wu si réseau bi yàlla gërëm te mooy réseau boo xam ne bi fa tabarakalaa te mooy islaam day saxoo yooyu tey bëri nawaafil yooyu laaxi biral la boo xam ne sama bopp laa si jiital nu ngi masawu képp koo xam ne ndog dal na la si loolu fi xew ñi nga xam ne bi noo koy defit nu ngi ñaan yàlla walbati leen ba nu tiit ba gis la yàlla gërëm fa tabaraka la nuy ñaanit yàlla bu benn way jur dajeeg loolu fa tabaraka la di ñaanit yàlla bu benn way jur njaboote koo xam ne ëllëg loola lay sa loola lay dox loolu daal fa tabarakalla laaxi biire la boo xam ne Wadduha mi ngi ko doon laaxi biire àddina bi yëpp yàgg nañ doon maye nawaafil ndax naafila bonis la bonis nag fa tabarakalla ndollent la te lu tax muy am solo mooy day loo xam ne defuli doo am benn daan li nga naan lii naa def te yàlla rekk tax jiital ci yàlla rekk tax loolooy tax loo si woo yàlla rekk yàlla day am kontaante ba wuyu la yàgg naa fee maye ñaari ràkka ràkka bu su nekk 19 faatixa ngay def 19 mooy tolloog waaxit di dellu ci kenn lu yàlla jëla jëlaluhu ràkka bu su nekk nga def 19 faatixa soo sëlmalee ba tey fatiha ngay def 132 132 nee naa boo ko peesee day tolloog xal bu xal bu nag nu ne mooy lan nu ne mooy xol mooy réseau central bi ndax jëmmi doomu aadama booy gis la koy contrôler lépp xol la foto tabarak laa ku bëgg nag sa xol set ku bëgg sa xol leer ku bëgg foto barak la lépp luy safaan nga du muyu ko naafila boobu fa laa képp koo xam ne bi saxoo na ko rawatina mu koy def ay guddi rawatina mu koy def guddi altine dama koy waxee rek ne yére bu tilim fa tabarakalaa benn sumb mën na koy bañ a setal waaye lépp boo ko dugalee si ndox jaarale ko si benn sumb pare jaarale ko ci beneen yokk si lang si yokk pare jaarale ko feneen dana mel ni na nga bëgg ci kàttanu yàlla xol tamit bu fa safaan dee nekk rekk dalay gën di xiirtal ngay def safaan ba mooy tax amaana tàmbali ga mën nay doon benn point benn tomb bu ndaw bu nekk sa xol lu ñuul nag bu nekkee ci lu weex lu muy gën di yàgg rekk ñuulaay bi day gën a yaatu wax yasu bi laa day dem ba ci sumun bu ko mun xamun fahum laa yubsiruun fahum laa yaqiluun yàlla na nu yàlla musal kon loolu nawafil la boo xam ne tabaarakala naafila tuub la naafila la boo xam ne bi képp koo xam ne bëgg nga yàlla jubbanti la nga xarit nga nekk xaritam di nekk rafetal nekk si sa xol may nan ko àddina bi yëpp ku si jub jafe tamit fa tabaarakala la ilaha illa allah nga xam ne boo boole woon lépp lu yàlla bind baat booboo ko gën a diis képp ku ko may man nga koy def riyaada 77 bu yàggee nga di ko def 777 su yàggee lu boni bon weer boo ko mënee weer bu si nekk nga def ko 7777 fa tabarakallah yàlla dina la fóotal sa xol yàlla dana la si defal iman yàlla dana la defal ihsaan te wal xasri innal insaana la fi qusrin yàlla na si yàlla musal lan la si teg illa la sina amanu wa hamilu salihat te dinaa di wax ne bu doon ne ku ku sa 80 garanti woon wala sa 90 cent boo amee 40 xaajal nga dëkk nag boo fay dem ba mu yàgg nga xaajal la la des bëreetul kon nan gën a defaru waaye nan defar njaboot gi nan defar kër yi ku si am soxna it yenn saa yi nga wéet ak moom ngeen ijjantu nga di koy laaj ndax lii mu sàngam xam nga ko yooyu day tax fa tabaarakala mu xam ne lii lu am solo la te yooyu dafa ëpp di xeeb ndax ak lu ngeen mën di def rek ngeen musulu seytaane tudd yàlla yéen couple bi yàlla dina leen musal seytaane te bu ngeen si muccee lépp lu sosu si yéen seytaane du mën a am si moom yoon yooyu yëpp fa tabaarakala ëpp na di xeeb fa tabaarakala loolu daal laaxi biir la boo xam ne Wadduha moo leen ko doon laaxibire tey seen mbokk alxaji Modou Cissé barak la naafil bi nu leen wax ku dem si wadduha point org da ko fa fekk ak yeneen i newaafil ndax li nu wax yéene bay saa yu nu jotaay bu nuy mën di toog ak lu mu mën a toll rek si kàttanu yàlla nu barkeeloo loo xam ne ku ko dégg dana la mën a dimbale si sa diine waaye tamit dina la mën a dimbale si sa dund kon fa tabarakallah eh, Pape Sidi loolu moo nekkoon seen émission Wadduha tey si Infos Rewmi lépp lu si jub nu ngi koy sant yàlla jalla jalaaluhu di wax na ma koy waxee rek yéene bi mooy ñëpp mucc ñëpp yokk yéene bi mooy yàlla yombalal ñëpp te dëkk bëgg sangu fa tabarakallah nuy ñaan yàlla yokk fóot xol yi yàgg naa di koy wax yàgg naa di koy wax ne lu nu téye rek mooy xol xol wallahi Sénégal fa tabarakallah bu nu fóotoon xol yi ñëpp yenente jàmm dinaa di wax ne àddina fa tabaraka la lu nu fay ut rek danañ bokk sa ña sa ña koy jiite ndax yàlla danoo defal loo xam ne def fu ko fu bari wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin